Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre du, de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, ñu ngi leen di nuyu du nuyu seen collaborateurs yi nga xamante ni si ñoom ngeen àndal di leen encourager par rapport à vos nouvelles nominations di leen ñaanal plein succès pour le développement du Sénégal honorable député chers collègues maa ngi leen di nuyu kenn ku nekk ci turam ak ci santam li ñu réunir lenn la mooy projet de loi boo xam ne le président de la république monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Faye def ko indi à l'assemblée nationale portant dissolution des deux institutions que nous avons toujours jugé que c'était des institutions budgétivores en l'occurrence le haut conseil des collectivités territoriales ak li nga xamante ne si moom mooy conseil économique social et environnemental constitution du Sénégal dans son moo wax ni La souveraineté nationale appartient au peuple, qui l'exerce par ses représentants, mais aussi qui l'exerce par la voie référendaire. Le président de la République jàpp naa ne wàccul yoon te mooy il a pris l'option de venir à l'Assemblée nationale soumettre leen li nga xamante ne si moom mooy projet de loi bi. projet de loi bi doon projet de loi boo xamante ne si wax nañ ne ñun ñëpp ça entre en droite ligne avec li nga xamante ne si loolu lañ yàgg a On a battu campagne en 2022 lors des locales battre campagne en 2022 ci li nga xamante ne si moom mooy législative bi député de l'intercoalition Yewwi lu ñu am loo xam ne loolu lañ défendroon wax ne bu ñu ñëwee au pouvoir on va passer à la dissolution de ces deux institutions chose qui a été faite et je pense que amul dara lu contradictoire ci démarché bi nga xamante ne si moom lañu jël le président de la république wax ne dafa am loo xam ne loolu la ci jublu mooy fexe rationaliser les dépenses am nañu wax sànq problème yi nga xam ne moom moo xew ci réew mi ba ñu interpeller le ministre du travail de l'emploi wax ne war nañoo mën a régler problème bi nga xam ne moom mooy problème emploi yi monsieur le ministre de la justice man damay voté euh, projet bi xam nga lu tax li ñu wax sànq ci problème emploi yi ñu gis ne ça touche majoritairement la jeunesse sénégalaise te jàpp ne li nga xam ne moom la ñuy économiser ci euh, institution yooyu nga xamante ne si moom la ñuy dissoudre ñu wax ne chaque année buñ ko totaliser ñaari quinze virgule trois milliards la tous les cinq ans yi nga xam ne nag moom lañ envisager président Bassirou Diomaye Faye nekk fi buñ ko toppee lépp dina nekk ci soixante seize virgule et quelques milliards loolu même bu dee ne c'est zéro virgule zéro un milliard sax ça vaut le parce que dina permettre tey ji ñu mën a renforcer le budget du ministère du travail qu'on a toujours défendu même si bu dee ne ministre du travail bi fi nekkoon ñun jàppoon nañ ne ànduñoo ak moom mais dañ doon taxaw fii di ko défendre nañ ko yokkal budget kon jàpp nañu ne doon na loo xamante ne si ça permettra à la population sénégalaise ñu am foo xamante ne si foofu lañ leen di soulager beneen bi monsieur le ministre ma jàpp ne collègue yi liñ fi wax ñoom ñëpp bi ñu jàllee jël parole ba léegi nee nañ la bañuñ ko voté mais dafa am loo xamante ni si buñ ko ci boole woon waa un gouvernement boo xamante ni si dañ ko mettre en place ñu voteel ko yaa euh, récemment mu nekk aux commande est-ce que on peut changer le Sénégal en moins de cinq mois c'est impossible tamit qu'on nous on se dise la vérité jàpp naa ne cinq ans la le président Bassirou Diomaye mi ngi soog a door am naa ultime conviction que li tax nit ñi voteel ko changement boobu dina ci dox moo tax man ma jàpp ne dina am loo xamante ne si tey jii nii moom dina ko mën a def par rapport ak li nga xamante ne moom mooy xaalis bi nga xam ne moom lañ fas yéenee jël ci dissolution institution yooyu on n'a rien contre ceux qui sont dans ces institutions parce que institution lañ comme ñun nu ñu nekkee institution mais projet bi li muy viser lenn la buñ ko dissoudre dañ koy dindi carrément parce que ci architecture constitutionnelle ak institutionnelle du Sénégal dañ fay gis ñaari institution yi suñ ko supprimer dañ koy génnee ci architecture constitutionnelle et institutionnelle Sénégal du tee day continuer def li nga xamante ne si moom moo ko war moo tax man ma jàpp ne et j'en appelle à la vigilance ou bien à la responsabilité de l'ensemble des collègues ñu voter projet de loi bi pour def li nga xamante ne si moom mooy euh, soulager li nga xam ne moom mooy la souffrance des de des Sénégalais beneen bi président Macky Sall dafa yor Sénégal 12 ans avec une vision bien ficelée mu waxoon ko ci plan Sénégal émergent on a un nouveau président nag boo xamante ne si il est venu avec sa vision fas yéenee déroulé kon na kooku yaakaar naa ne la représentation nationale doit l'accompagner pour mu def li nga xamante ne si loolu moom moo ko moom ko ñor je vous remercie. merci chers collègues Sokho vous avez la parole suivi de Cheikh Aliou Bey.